jangan menambah mizan wawa Pamar yo kana gisoo suma foor barga si jaam nada demay ñene omo waaw si Mouhamad nit ku buy def day def lu jaadu. xam nga lii du set nga jaar yi. man ah yow billahi sama àq dina la dal balaa nga demee soo yàlla nañ yàlla àtte billahi dama rek at naa nga la indi si kër gi nga bëgg mu fi toroxal wóor dina leer dama rek billahi dina leer yàlla dinañu àtte doon nitul dara yow xam sax wante demal rek àdduna nga sa kanam loo taxal mën naa ko foofu dee taxal rek may foofu billahi Aya, saya banyak rekan mereka. réewuma la réewuma la man réewuma la. mi ne danga wax nga xool. mari réewuma la. mais daari la léegi meree la. wuy ma réewuma la. waaw dama ko liggéey rek ma liggéey. nga daaneel ma fii. yaa fi jaar ko. yaa ka tey nga daaneel ma fii. man daal en tout cas daal réewuma la. ku nekk na ko liggéey. mi ne yaa ka tey nga daaneel ma fii. door ma rek. soo ko wax ma door ko si bopp léegi. billaahi door ma ko nga xam. puusal damay liggéey. damay poos. jaane boobu ma daanu fi. kan moo la buux. jaane boobu ma daanu fi. yow fii nga fekk may liggéey. yaa ka tey ne ne defu ma fii ma ma ma daanu. waaw wuy ma fii nga fekk may liggéey nga ñëw jaar fa sa tànk yi tax. yaa ka tey nee naa la balaa ngoon yàlla nañu yàlla atte. yàlla moo ñu atte rek yàlla atte woo ko yaa ka yaa ka def lii. en tout cas daal yàlla ñu atte. dégg nga gis tey xaari rek. dégg nga def nga ko. yàlla ñu atte rek. yow même wutu dañu ma jàpp. dégg nga def ma xaar. dégg nga def daal baax na. billahi yàlla. su ma amul woon li ma seet. demalee ngaadu kuuru. en tout cas daal dama liggéey sa liggéey. waaw dama am li ma seet moo tax muy ngaadu demalee ngaadu kuuru. seetaane góoru wax bari góoru jigéen bi. góor góor bu baax yëpp mi ngi liggéey feneen. damay daan sama doole rek. billaay way boobu neex na ah. ah tudd. Eh, eh. ndeysaan ah tuuti bu may tey sama xol dafa sedd ah xam nga ni eh waxuma ak yow nag waxuma ak yow ndeysaan ah tuuti ah tuuti tapi tapi si naam mu mel comme naamu fas. mu mel Tapi mau sama yang dafa tàng. su caaya bu xeeñ bi. jàppi jàppi bi bi ma ñëwee bi may liggéey ba léegi akbar. allah ku bari doo julli. yàllaay karim. yoo fóori nga. xaaral ma dem. mag sama siwo bi. wante nag góob góob. Kau dégg mega gaar waale foofu. foofu noonu way bu mu génne moom daa neex خرج سيدو آخر فوق خرج مهرج خرج سيدو آخر فوق ولا تقول لنا كما تعمل تعمل تفوق تعمل على البيت يا لدينا أتي ولا في بعض ولا في الأمريكا ولا في يكم جبلان